waaw kay mu ne léegi ab mu ne fastafa mu daal di ran attalamidu élèves ya jamian élèves yi jamian boole seen mas ñaar-ñaar maanaam élèves ñu ñu par ñaar-ñaar mu ne wa daxaltu ma daal di dugg ñoom ànd ak élèves yooyu xurfatin jëm ci classe jamilatin bu rafet xaarat lahu mu ko ummuhu yaayam yaayam daal dane daal dine daal dina ko wa maa daa fi tilkal xurfat ne ko lan moo nekk ci boobule classe aljamilat bi aji rafet yaa wala di sama doom xaala Saïd Saïd ne ko nekk na fa mooy ci biir classe boobu a gi day dellu ci xurfati gi mu ne fiyaa nekk na ci boobu classe doon ay banc xasabiyatun yooyu dénk banc yoo xam ne dénk lañ leen defaree mustafatun yoo xam ne dañ leen rangale maanaam dañ rangale goo xam ne day ànd ak organisation maanaam day tolloo yemu amaama saburatin maanaam bang yooyu ñu nekk ci kanamu tableau kabiratin bu rëy sawda wala bu ngand sawda tamit bu daal di ñuul maanaam tableau bu ñuul te rëy moo nekk ci kanamu ban yooyu nga xam ne ban yi dénk lañ mu ne yaktubu danañu ca bind mooy danañu bind ca kaw tableau booba yaktubu alayha bind alayha ca kaw tableau booba <coughs> mooy maanaam tableau bi danañ ci dana ci bind astafurlah yaktubu dana bind alayha ca kaw tableau boobe mu jàngalekat bi ak duruusa leçon yi maanaam tableau boobe daal li muy jëriñ mooy jàngalekat bi ca lay bind leçon yi nga xam ne moom la gone yi di jàng wala ñi nga xam ne ñoo fay jàngee moom la ñuy jàng mu ne wa alal yamini nekk na ci sa ci ndeyjoor wa ak ci càmmoñ nawaafidun ay fenêtre kabiratun yu rëy maanaam classe bi daal wetu ndeyjoor ak sa wetu càmm yépp am na ay fenêtre yoo xam ni ñoo fa nekk mu ne yaduxulu dana dugge minha ci fenêtre yooyu alhawaaw air wala ngelaw daal maanaam ngelaw dana fa dugge wan nuur ak leeru jant bi tamit dana fa jaar duggee fa maanaam ci biir euh, ci fenêtre yooyu daal ci la ñuy gisee ak leer maanaam leer gi fa lay jaar pour dugg maanaam ngelaw li ñu noyyi tamit fa lay jaar pour dugg mu ne watata dal laa dana yooru maanaam dana lang man kaa fire dana lang wala dana yooru min saqfil fati ci xëdd ci xëddu euh, saal bi maanaam xëdd bi saal bi mu dana yooru ci xëddu saal bi masaabixun ay làmp kahrabaayat ni yooyu courant jamilat ni rafet maanaam laa bëgg kon am na ay làmp yoo xam ne nii day mel ni dañ koo takk ci kaw xëdd bi ci xëdd bi ci kaw mu yooru ci suuf jëm ci suuf xam ne buñ téenee dañuy seen dañuy gis làmp yi mu tiim leen moo tax mel ni koo xam ni daa luñ yoor daal hmm. te dal la te dal la xam nga boobu goon a at la dalwahu fil biiri mooy yoor na baagam ci biir ci biir tend adla dalwahu fil bi'ri mhm. mooy yor adla ah. wa fi ruknil xurfati nekk na ci koñu euh, nek bi euh, saal bi xidaanatun ab batan wala ab baya man ngaa firee batan man ngaa firee ab baya kabiratun bu rëy dana ñu tek dana ñu tek fiha ca kaw batan boobe almoallimu jàngalkat bi baxdal adawaat lenn ci ay juntukaayam lenn ci juntukaay maanaam jàngalkat bi dana ko teg ci kaw batan booba amma xiitaanul xurfati bu dee miiri classe bi nag miiri classe bi fa kulluha miir yépp musayyanatun dañ koo taarale wala dañ koo rafetale bi suwari ci ay fato mu al mu lawanate yoo xam ne yooyu couleur lañ maanaam photo yi dañ koy couleurer maanaam bi mën naa doon orange bi doon weex bi doon chocolat photo yi fa nekk daal nekkul photo yoo xam ne day doon noir blanc photo yoo xam ne photo yuñ couleur la fa xaalam wax lahu ñeel ko aquuhu ay mbokkam wala an léegi nag hal yujibuka alkutaabu awil madrasa léegi nag ban moo la gën a yéem daara ja wala école ba sanit daal di tontu ne qaala Saïd nii naka man daal uhibbu bëgg naa lool al madrasa école maanaam inni uhibbu al madrasata kasiran maanaam bëgg naa école lool daal maanaam bañ ko laajee daal kon wane na ne moom école moo ko gënal daara ja wabillahi tawfiq ku gis la loo xam ne nii tamit jàpp nga ne du noonu na ko wax njariñ li gën a yaatu